أي جارة مأمام أمل ci ndigalu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Maodo si bu alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabaax Serigne Babacar si Abdoul Aziz ak si teewaayu Chérif Hamza at Tidiane mouvement xubbu taaxa bii nga xam ne sunu kilifa moo ko jiite di Serigne Mansour Niang moom mi nga xam ne moo yore taxawaayu njaarne na nag bu ñu ko waxee xel yépp dana dem ci sunu maam alaaji Malick Sy radiyallahu taala anhu nga xam ne foofu la daan defaree muqaddam mi kon nag taalibe bu nekk war naa xam njaarne ziyaara njaarne nag jàpp nañu ko benn fan ci weeru novembre muy tolloog juma ñu ci invité taalibe yi muxaddam yi imaamu juma yi sëriñu daara yi bàyyiwuñu kenn waaye nag ñu ci séntu sunu sëriñ sëriñ Babacar si Abdoul Aziz ren nag ñu tànn ci thème bu am solo war ko waxtaane muy maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy ak Jolof moom la ñuy waxtaane kon nag yéen waa Jolof yéen a aye bu ñu waxee Jolof xel yi dana ci maam xel yi dana dem ci alxaaji Daouda Dia ca Mbëlëxe xel dana dem ci alxaaji Abdoulahi Mbeng ca Mbula xel dana dem ci haji Alioune Sakho bu Daara xel dana dem ci alxaaji Basiru Si nekk ca Marina Si xel dana dem ci alxaaji Baba Jamañang nekk ca Xol-Xol xel dina dem ci alxaaji Mor Seyna bu Guèye nekk ca Barkeeji xel dana dem ci haji Soose Njaay doxee be xel dana dem ci alxaaji Buya Njaay xel dina dem ci alxaju ndongo lekkoor xel dina dem ci maam Mor Ndiaye Njama xel dina dem ci buuna Alburi ren nag seen invité d'honneur waa koskaas bu mbaaw kon mbokk yi yéen waa jolof yéen ay ren muy Seydil Xaaji Malick si ak jolof ma ne leen nag kan moo war a waxtaanee thème boobu ñu ne nag ki koy waxtaanee professeur Mbaye Thiam di borom xam-xam bu yàlla rafetal xam-xamam war ci ànd ak Serigne Baba Mbeng bu sunu baay Abdoulaye Mbeng programme bi nag nan lay tëddee bu 9h ci suba gi jotee daañu jàng alquranul karim bu 11h jotee ñu def ziyaara ca mosale ba ak kilifa diine ya fa nekk bu 14h jotee nag ah ñu julli ajjuma waaye nag bu 15 h jotee ci la ñuy amal conférence ba bu tàkkusaan jotee ñu julli ñu jullee continuer ba xadaratul juma jot ñu amal fa xadara julli timis daal di ñaanal njaboot gi yëpp ñu delluwaat ci kër ya kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu mouvement xubbu taaxa bii nga xam ne Serigne Mansour Niang moo ko jiite ñoom nag ñoo yore njaarne gi kon nag ñu ngi koy yëgal mbokku taaliba yëpp benn fan ci weeru novembre muy ziyaara njaarnde njaarnde bu maam alaaji Malick si radiyallahu taala anhu ah mbokku taaliba yi na ko ñëpp waajal njaarnde nag dëkk la ci dëkk yi ndax kat lu bari foofu la xewee kon nag boo ko kenn wuutee aljuma benn fan ci weeru novembre.